yi ñu tàggat ba pare ngir rek ñu am liggéey nekk lu jafe lool ba waral at bu jot ndaw yi bëgg ñu tàggat leen wala ndaw yi ñu tàggat ba pare di wut liggéey di dal di yokk saa su ne seen dugg nag ci entrepreneuriat moo dal di nekk rek réponse waral ba ñu teg en place ay curricula tey jii politique u ministère de la formation professionnelle mooy bindaat tëggaat programme yi ba nga xamante ni xale bu ñu ci formé boo génnee rek am liggéey loolu nag processus la mënuñoo xëy tey mu sotti tey euh, tàmbali ko tey mu sotti tey processus la te ñu ngi ci ñu ngi jublu sax ci bind ay programme yu bëree bëree bëree bëri des centaines de programmes yu nga xamante ni xale boo xam ci pàcc bu nekk ci ci ci économie bi xale buñ ci formé boo génnee wax dëgg yàlla parce que bi ñu koy tëgg ñu ngi ko tëgg en association ak ñi nga xam ñoo nekk ci entreprise yi soo génnee boo wutee liggéey rek da ngay am. internaliser lii di entrepreneuriat nag ci tàggatu ndaw ñi nekk benn farata waral ba ñuy dal di sàkku rek ñu dal di yemale góor ak jigéen. xaañ-xaañ yi ñuy def jigéen ñi ci entrepreneuriat loolu la bëgg mu wàññeeku ba mu dakk maanaam góor ak jigéen mën na tolloo ci yépp luy dem ci entreprise loolu moo ñu indi fi tey. bii leen daje nga xam ne nag dañuy yokk xarañteefu képp ku fi daje ci diiru ñetti fan mu mel ni rek ñoo ngi fiy xaarandi ay résultat yu bari. pour bokk ay objectif objectif yi mooy ndaw ñi xereñ mais ndaw yooyu bu ñu xereñee jigéen yi ci bokk it xereñ ñu assuré wu ni jigéen yooyu dinañ xereñ ndax bu ñu paree seen formation ñoom ñëpp mën a am liggéey ba ca war. ñu fas yéene sukkandiku ci compétence ku nekk ngir rek indi ay saafara ba képp koo xam ni tàggat nañ la ak ci bépp domaine soo génnee rek nga dal di am liggéey.